hamdi wa suri aousubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasiman muhammadun rasulillah walazina maahu ashidaaw ñoo ngi sandaa suñu borom subhaanahu wa taala di julli sayyidina muhammad rasulillah sangub sang yi di ñaan tey siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacké mu yàgg la daan ak wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmm xalifab Cheikh Ibra ak njaboot Serigne Touba Serap Fall mboolem kilifa dini yi ak mboolem kilifa aada yi yéen mbokki taalibe yi ñoo nga amaan mbégte saa su nekk di jàkkaarloo si waxtu bii te nag suñu borom dogal fii nga xam te ne ñëwoon nañ fi 2015 ñu ñaar fi tey di daara Wakana Haqqan Serigne Saliou faree fii si HLM Fass euh, ñu ngi fekkook ñi nga xam daanaka moo di Serigne Abdou Khadir Diouf mi nga xam moom mooy jëriñ daara ji ak ki nga xam moo di euh, Serigne euh, Abdoulahi Diaw mi nga xam daanaka moom mooy jëriñ tuutànk yi wala laa ñu guddal rek dañuy daal di bàyyi ngeen daal di teelu ko yóbbu allah bu si noobee jublu si waxtaan bi. la jur Ah, jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi ginnaaw ba ngeen toolee kuréel tout tànk bu am solo boobee ak xas day neex yooyee dañu daal jublu si waxtaan di leen fàttale ba tey tey ñu ngi fekk si waa daara Wakana Haqqan Serigne Saliou ah, fare fii si HLM Fass waaye dañuy daal di jox Serigne ah, Djily Diouf mi nga xam daanaka moom mooy juróom tout tànk yi mu daal ñëw ak téléspectateurs yi ko teew si Bichri TV aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim malik yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalin bismillahi rahmaani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim xul xula a onze bi rabbil falaxi min sharri ma allaxa wa min sharri xaasiqin iza waqaba wa min sharri nafaasaati fil uqadi wa min sharri xaasidin xasada bismillahi rahmaani rahim xula a onze bi rabbil naasi malikin naasi ilahi naasi min sharri waswaasi xannaasi allazi yuwaswisu fi suduril naasi mina jinnati wan naasi jërëjëf borom Tuubaa ñoo ngi ñaanal ñoo ngi ñaanal Cheikh Sidi Matar Mbacke yàlla na fi yàggul lool te lool te wér yëpp kii yëpp kilifa Euh, jërëjëf sëñ Jili Diouf ñu daal di jox sëñ Abdoulaye Diaw mi nga xam ne xëy na tuut tàngale say at wante mag la macha allah ñu daal di nuyu ak mbokk taal bi koy teewlu si Bichri TV. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant Euh, jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Diaw mbokk taalibe dinañ fàttali ba tey euh, si jeexantal émission bi incha allah dina am rayes Serigne Cheikh Diaw tout tàng dina rayes incha allah sëñ Abdoulaye Diaw tam dina am ay béy yu muy jukkal si téere bi di tasawur si xaar baaxee ñu ko mu doon yóbbul bési waaye dañuy daal jublu si waxtaan rek ak Serigne Djily Diouf mi nga xam daanaka moom mooy jëriñ tout tànk yi sëñ Djily mu mel ni daara ji mu ngi sos woon si diggante 2009 ak 2010 ñu gën xam daara ji ba muy sosu maam tàmbali bi nan la demee woon. waaw bisimilah rahmaani rahim daara ji muy muy muy moom mi ngi sosu diggante 2009 ak ak kii 2010 waaw waxoon naa ko fi nag waxoon naa ko daara ji dafa jékki dafa jékki-jékki rek dikkee ma nii moom woote wootewu ma ko sàkku ma ko dafa jékki-jékki rek dikk dik daal may dikkee nii benn élève dong daa fa amoon moo ñu koy naan suñu waay kii waa suñu Cheikh Ndiaye benn élève boobu benn benn élève boobu dong daa fa amoon ñu dem dem ba jamono ma fii la ma fii la ma borom jamono borom jamono feeñu jëxëran waaw loolu moom waxoon naa ko fi daaw waxoon naa ko at bi nga fi njëkkee ñëw te nag loolu loolu laa lay waxaat ni moom si sëñ Saliou si boppam moom moom moom feeñu bëccëg ndar kam fu may fu may jaay café nii ñu ba jamono ma gis tamit tout tànk yi di ñëw waa benn benn ku nekk di ñëw na dem ah bañ neen sax ba sama sant léegi sax ñoom duñ ko duñ ma ko wax Fall rek la ñuy wax waaw ah Fall ah Fall man de waa man de waa damaa bëgg jàng Fall man de waa damaa bëgg a jàng ba tey jii daara ji baa ngi tey léegi yokk na ba am naa fi tey 52 ba 52 élèves waaw daara ji daal noonu la mu noonu la noonu waaye noonu la mu dikkee man jaaruma fenn jaaruma jaaruma dew ma dew ma daara dew ma fenn waaw ma jëbal ba suñ ma jëbal suñ sama wasila suñ Cheikh Ndigal Fall si laa dem tamit ba xamante ne tamit am na lu bëri am na lu bëri lu mu kii si man génne si man te am na lu bëri tamit lu mu lu mu def si man ba nii ba tamit ñoo mun na tamit loolu loolu loolu tamit la nit ñuy gis rek. Euh, jërëjëf sëñ jërëjëf bu ñu déggee wax ji bu baax daa mel ni. Euh, Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke borom jamono moo la feeñu woon jox la ndigal daara ji wante tur Wakana Haqqan bi yow yaa ko euh, tuddee tu tànk yi wala kilifa dafa am si kilifa boo am da ngeen dem si moom euh, mu jox leen bi di Wakana Haqqan alaynaa nasrul muminin waaw tur bi tur bi nag moom tur bi nag moom daw ma daw ma si benn kilifa daw ma si benn kilifa ba kilifa jox ma jox ma tur bi Wakana Haqqan moom dafa maa waaye dafa maa dikkee nii rek damaa jékki-jékki rek xas bi xas bi waaye daal may jublu. bu ma bu mu jubloo nag si laa ko la si laa xool xool ba xam ne maanaam li daal amul kenn amul kenn ku mu koy tuddee ma jël ma jël ma jël tamit kii bi rek daar ji rek daal koy daal koy tuddee daal koy tuddee tur boobu waaw wakkaan xakkan comme man yëg ki laay demee daal yëg yëg kii waaw yëg-yëg waaw wakkaan bu ma xoolee wakkaan nekkal xakkan si dëgg man tamit ma jël tur boobu rek daal koy daal koy tuddee daal koy tuddee kii bi nag daara ji waaye daw ma daw ma si benn kilifa mu jox ma tur tamit daw ma ma daal daw ma daal si kenn daal waaw dama dama daat si genn su ma su ma yëg-yëg laa su ma ba tuddee ko ko noonu ba nga xam ba nga daara ji li la wax rek chaque jour rek ñu ngi fiy def 28 wakaana waaw am na ay bés yi nga xam ne sax daan def 300 300 jox ko jox ko kii ne euh, si yaatal googee euh, saa ngi sa biir wax da maa li nga xam moo di tàmbaleeg daara ji tuutàngi dañoo ñëw par benn benn kon bu ñu déggee wax ji maanaam xëccoo benn tuutàngi teyit woowoo kenn lépp Eh, sëriñ Baye def sababam rek ba ñu ñëw ndànk-ndànk eh, wante eh, tout tànk bu fi ñëw maam bëgg tàbbi si liggéey bi soit day wut carte de membre wala day am ay ndigalu waajuram wala day ñëw rek nga tàmbale ko jàng yow nan ngay doxee foofu noonu. tout tànk bu ñëw bu ñëw tamit bu jamono moom am na ay am na ay sax am ñu nekk sama sama gannaaw fi ñu bëri ñoom sax jotuma leen laaj laaj jotuma leen laaj dara waaw daara bi muy tàmm daan moom laaj kenn dara. am ñoo xam ne sax seen waajur yi ma xëy ma leen ko mosuma leen gis waaw ñoom ñooy ñoo ñooy ñëw seen bopp ma ma jàngale am ñoom seen waajur yi benn yoon benn yoon dong benn yoon benn yoon dong ma laal fi kii kii wa laal fi gis benn yoon benn benn yoon dong benn yoon dong laal fi gis mooy maanaam fii lu may may wax fii gars yi man chaque fois moo leen waaye du seen waay yow seen kiiw seen waaye du seen liggéey yaay moo la fi indi waaw ndimbal waaye ndimbal sëñ bi la waaw ndimbal sëñ bi sëñ moo tànn ay nitam nga xam ne ñoom tey ñoom tey ñoom ñoo ñëw jàppale si liggéey bi ñu may ñooy ñëw tey na aslam faste doon na waa bi nga xamante ne lu may wax fii nag maanaam lu war a daayira yi loon taxoon jóg waaye ko dafa daaw dafa faussé ndax daayira daayira léegi amatul amatul kii daara waaw léegi man tam moo demee ba xool loolu si laa jël léegi ndaw ñi dina xamante ne maanaam léegi maanaam konku daayira daayira léegi maanaam dootul dootul defar ma jëlee tout tànk waaye di def di def ci ñoo alxuraan di def di def di def ci ñoo xasida waaw mais ñu si bëri tey fii am ñoom tey xamante ne seen waajur yi musu musu mën a gis am ñoom seen waajur yi moo moo la fi indi waaw am na ñoo fi ñëwul ñoo fi ñoo fi ñëwul seen bopp mooy nim ci man dama koy jàppee ndimbal ma ndimbal sëñ bi la rek ndax moom maanaam ay xas de moom doo ko doo ko jublu waaw euh, jërëjëf sëñ Djily si yaatu googu mbokk taalibe di leen fàttali ba tey yéen a di teew li nga xam moo di seen émission Ziar Daara te ñu fekk si waa Daara Wakana Haqqan euh, di ay tout tàng féete fii si euh, HLM Fass dañuy jublaa sëñ Abdoulaye Diaw xam ngaa am xam moom jot ngeen xàmmee jëmmiñ ndax bañ fi ñëw daaw jeeg si kuréel bi la bokkoon waaw suñu borom dogal daay di dox di dox ba mu dem euh, bay rapatal tout tànk yi sëñ Ablaye ba mel ne sàng sa gars yi da ngeen fi prestation boo am solo lu mel ni raditu anil mawla te radit daanaka bëriwul ay daal di koy jàng te euh, si air bu métti lañ ko jàng yéen ba ngeen di répété ba ngeen ba ngeen leen doon répété raditu bi est-ce que amu si ay jafe-jafe ndax dafa boo xam yombul noonu noonu noonu. ba ma leen doon répété raditu bi raditu anil mawla bii nii xawoon na am tuuti ay jafe-jafe mais. mais après surtout si kanam muñ ma ko woon eggale mais dama bàyyi ñoom ñu continuer seen bopp dama leen woon si commencement bi acam si fin mais nag si bëru surtout si premier daaj bi amoon na ay affaire yow yu des acami surtout tamit si deuxième daaj bi amoon na ay tamit affaire yow yu des surtout cat yi mais xawoon na des nag euh, jërëjëf sëñ Abdoulahi euh, yow euh, soo leen di répétal da ngay teg cassette ñuy répété wala da nga koy déglu ba pare nga ñëw expliquer li nga xam ne déglu nga ko. su ma leen di répéteel man damay déglu ba pare ñëw man ma répété leen mais des fois comme ay genre ay air yu bees yi nii moo nekk son yu comme ay Baye Saliou Thiam yooyu noonu man dama koy teg ñoom ñu déglu man ma leen koy répéteel loolu noonu. Euh, jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Diaw si leeral yooyee euh, dañuy jublaat sëñ Jili rek mi nga am moom mooy jëwrantu tàngi sëñ Jili sànq andil nga ma li nga am daanaka moo di sa digganteeg waajur yi mu mel ne dégg nañu wax ne nga am ñoom seen waajur ndeysaan mosoo gis seen waajur yi wan bu weesu la est-ce que waajur ñoom des fois ñu ñu ñëw fi di saytu. seen doom pour xam seen doom si yan condition lañ nekkee est-ce que waajur ñu ngi euh, am saytu boobu fii sa diggante ak ñoom. Mm, loolu loolu nga wax ni am na ñoo am na ñi nga xam ne seen waajur bi bu ñu fi indee bu ñu fi indee ba léegi tamit kiiwatuñu fi jaaratuñu fi waaw ndax am na ñoo xamante maanaam dañuy indi dañuy indi seen doom rek pour ñu mun a kii nopp pour ñu mun a pour ñu mun a noppalu waaw mais du seen objectif seen objectif maanaam du du waaw du seen am am diine wala seen doom mën mën mën moo leen kii. ñoom nañu ñëw rek seen doom toog rek comme ça ñu ne mi ngi ñu mi ngi fi mi ngi mi ngi fii si kii bi daara ji waaw ñoom loolu loolu am ñoo xam ne nag dafa dañuy jékki-jékki jaar fi nag a ah laaj ma ndax ah tànk mi ngi góorgóorlu wàllu wàllu wàllu wàllu dé waaye loolu lu moom néew na moom boo si compté benn wàllu ñaar rek moom moom moom kii wóotul moom moom waaye bu waaw ndax jamono jamono moo toll fi nga xamante ne ñu si waajur yu bëri diine diine kiiw leen daal kiiw leen jubluwu leen waaw maanaam sàkku yàlla si boppam yàlla moo leen lañu kiiwul jubluwul waaw sàkku yàlla ñu jubluwul moo waral tey jii tout tànk tout tànk yu bëri maanaam pour ñu am pour ñu am diine day métti ñu lu bëri perte culture dañoo perte seen culture waaw dañoo perte dañoo perte dañoo am waajur léegi taltuñu te wa taltuñu dara waaw man nag damaa jékki mu la waxoon ci commencement bi damaa damaa ñëw rek pour pour jël leen sa su fi ñëw moom seen ndimbalu ndimbalu sëñ bi la waaye du sa du sa ñàmbaar waajur waaw sëñ bi moo moo nam moo nam si yow moo nam si yow ab ab ndimbal rek mu indi la waaye du ay waaju yi nga xamante dañuy ñëw di set di saytu seen doom wàllu wàllu wàllu déet moom. Euh, jërëjëf sëñ Jili mbokk taalibe yi euh, daanaka fii nga xam ne foofu la foofu dañ fay sof rek ndax euh, bari waa na jamono yi waajur yi dañuy gis daanaka suñ nee ba yóbbu seen daara daa fekk seen doom sonal leen ngir bëgg noppal si moom déedéet ku dem ba yóbbu sa doom daara maam na jàng na diina tax jàngam diina na tax wande Euh, du sonal gi la sonal wala lakkal gi mu la lakkal wala nga bëgg débarrasser si moom moo tax rek nga bëgg mu dem daal déedéet boo ko yóbbu daara nanga nga fas yéene mu dem jàng diine ngir ëllëg mu am lu mu la mën a dimbalee am lu mu la mën a wutoo kon boog maa ngi soññ waajur yi képp yóbbu sa doom daara maam na koy saytu du xool nekkinam tooginam ak doxinam te it euh, ngeen jàpp si li nga xam moo di euh, liggéeyu daal bi mu nekk ndax daara yi bëri waa na amuñ subvention gouvernement tey it kenn jàppale woon seen doole bopp la ñuy demee ak i sarax kon ba ku yóbbu sa doom daal na am suivi suivi mooy nanga nga koy teewlu di ko saytu euh, tey di leen euh, jàppale daal si li nga xam maam mooy lu jëm si wàllu dund bi euh, dañu jublaat rek si seen njiil bu weesoo maam sa diggante ak waajur yi mu mel ne ñoom tamit ñu si bari dañuy jàng école léegi yow nan nga organiser woo seen emploi du temps wàllum jàng école bi ak tamit wàllum njàngum ngoon bi fii. waaw wàllu man ñoom moom seen wàllu jàng école moom yàqul ma dara moom ndaxte moom su école tëjee moom si laay gën a sas si laay gën a bëre élève ndax am na am na am na élèves yi nga xamante moom balaa ñuy ñu bu ñu xasee ba école ubbi sax balaa ñoo ñëw sax yàlla xam am ñoo xam ne benn yoon dong lay ñëw semaine bi waaye su école su école ubbee moom sama appareil dam man moom aw ma fet ndax chaque jour ndax chaque chaque jour man damay jàngale moo comme ni ko gars yi defee te ay alxames avant du ñu jàng ma nekk ma foofu man chaque jour chaque jour chaque jour waa damay damay kii waa damay kii ko jàngale waaw léegi ñoom même bu doon sa benn élève moo ñëw sa moo ñëw bi dama koy jàngal ñoo nag ñoom chaque fois chaque fois rek dama di bàyyi ndaxte tam am na am na fooy fooy toll soo bëggee dimbale maanaam yenn yi mu doon ko teg ndax ñoom tamit seen waajur école bi ñoom ñoom école bi la ñu gën a gëm que que que kii bi waaw jàng jàng bi dañuy gis kenn koo xamante ne day toog semaine bi yëpp benn yoon lay ñëw soo ko dàkkee su waajuram ñëw mu ne ah moom de moom day jàng kudu soir dugg na fi dugg na fi génn génn boo ko dàkkee yow léegi xale bi am amatul ndimbal moo tax léegi ma dama ñoom léegi ñoom laay bàyyi ak seen xel waa mais samedi samedi dimanche nag ñoom na si lañuy waaye yow si la ñuy gën a ñëw si la ñuy gën a ñëw moo tax mënul wax man aw ma fet chaque jour chaque maa ngi si ñoom laay bàyyi seen seen emploi temps nga xam ne ñoom ñoom ñoo xam ne seen école bi waaye man chaque jour rek man moom maa ngi maa ngi si maa ngi si waa lu ma waa lu ma lu ma nekk daal euh, jërëjëf sëñ Jile chaque jour yaa ngi si wàllum jàngale bi waan bu weesoo jàng bi nga leen jàng si wàllum alxuraan ak xasida yi euh, seen wàllum nasaraan estam yaa ngi koy saytu ndax xam nga genre tout temps ngi mel ni ku leen yor xam nga benn responsabilité bu diis bu nekk si ba tax Euh, du saas na ngay euh, bàyyi xel si li ñuy jàng kese foofu tamit ngay saytu li nga xam moo di seen wàllum nasaraan est foofu tamit yaa ngi fay doxee yaa ngi saytu wàllum nasaraan gi. waaw wàllu wàllu nasaraan tam am na am na ñu bëri tamit maa ngi kii kii waaye maa ngi bàyyi xel am na ñu bëri damay jékki-jékki sax ma ma ma xaw a bàyyi jàngale ma laaj leen kan yow ma ma woo benn na ko ndax yow nax yow yaa ngi yaa ngi jàng say leçon su ne waaw ma na ko ma na ko ma na ko waa sa kay leçon ko boo ñëwee soo ko mokkul soo mokkul nga nga ma ber la nga nga kii nga nga nga jàng ko parfois ma jékki-jékki gis benn nga xamante ne amul am na problème kii sax problème écriture ma laa ci kay écriture ñaata lay jar ñu ne ma 800 lay jar ma génnee ma ma ma ma ma jox la ma ne la ma ma ma bool la kenn ne la boo demee kii waay yi da jàngal bind waaw chaque fois moom man moom maa ngi maa jàppale si si si ñaari ñaari ñaari fànn yëpp man sama samay sama objectif mooy xale xale bu tolloo si jàng rek dafa war jàng waaw man xale bi taxawaal moom moom laa bëggul xale bi taxawaalu xale bi taxawal moom laa bëgg moo tax chaque fois dama dama di contrôler par ma jékki-jékki sa ne la ah ngeen compo sa moyen ñaata la ah, sax ma jékki-jékki sax laaj la yow laaj la yow laaj nu mu ko jàppee tamit laa jàppee tamit ñeneen rek am na ñoo damay dem ba seen école waaw di laajte ndax kii moom ndax kii mu ngi góorgóorlu te maram na ma kii waxal fa mu nekkee ma ne ko su waxatee rek waxal woo ma waaw su ma ñu su ma ñëwee su ma ñëwee waaye naa ko la jënd euh, jërëjëf sëñ Jili Abdou Khadir Diouf euh, mu mel ni bu ñu déggee wax ji bu baax ñaari suivi yëpp matee na ko lu mel ni wàllum njàngum daara ak wàllum nasaraam te it noonee sax daa ndax nit ki moom da war ay tout tànk di leen jàngal lu mel ne euh, alxuraan ak xasida bëgg yem foofu kese déedéet maam da ngay saytuwaat li nga xam te ne moo di wàllum nasaraan gi te bu njëgg wax ju bu baax yaa ngi si euh, dañuy jublaat sëriñ Abdoulaye Diaw mi nga moom mooy jëruñ tout si wàllum euh, njàng bi sëriñ yan bës bés ngeen di faral di répété comme sëñ Jil ne na moom chaque jour day jàngale yéen chaque jour ngeen di répété wala si usine dafa am bés yoo xam da si taamu fii nii fii nii chaque jour ñun dañuy répété chaque suba chaque ngoon mais mais ñoom dañuy bay ñoom bañu ñu jàng yow ba pare si suba si ñoom suñu jàngee yow ba ay lii nii onze noon yooyu li après dañuy defar kuréel su kuréel un bi jàngee léegi après rek kuréel deux bi wal wala su kuréel deux bi jiit jiitu weere rek kuréel un bi jël noonu la ko defee sak suba chaque ngoon. Euh, jërëjëf sëñ Abdoulaye sànq mu mel ni tamit rayitu bi ñaari daaju bokkul ngi ko jàng euh, tàmbali bàyyi leen faal ngi ko tàmbalee. Euh, ngeen jeexalee ko Baye Saliou Thiam bu weesoo ñaari daaj yooyu yan daaj ngeen di faral di gën di jàng en dama seetlu lu si bari seen euh, njàng heure way ngeen di gën a jàng est-ce que am ngeen projet jàng euh, à l'avenir lu mel ne ay heure sëñ Massamba xeet yooyu. fii nii ñun ñoo ngi fiy jàng heure sëñ Massamba Mafatihul Jinaan chaque jour mais tey xam naa enu taa bi demee loolu noonu moom tax ma ne leen ñoom nañ jël radiitu bi moom moo tax apart raditu ay Mawahibun Naafi Mawahibun Naafi xasida boobu yow dinañ ko jàng apart Mawahibun Naafi dinañ jàng ay saani ilaahi ay yeneen yi euh, jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye mu mel ni moom <laughs> daanaka daa mënewul wax baax daanaka daa mel ni kuréel euh, la gën a mën a war na ngeen xam ne amaana mu ngi soogay wax si télé moo tax mu xaw a timide noonu euh, di leen fàttali ba tey yéen a ngi ànd ñu seen émission Ziar Daara yi tey ñu fekk si waa Daara wakaana xan euh, waa kër Serigne Saliou di tu tout temps am naan fi la ñu faree fii si HLM Fass euh, dañuy jublaat si waxtaan bi rek ak nga xam daanaka moom moo di Serigne Cheikh mi nga xam daanaka sànq jot ngeen ko dégg sëñ Jiil di ko juñ di wax premier taalibam moo di sëñ Cheikh sëñ Cheikh boobee moo toog ni sëñ Cheikh laaj bi genn la mais maanaam sa digganteeg sëñ Jiil ndax. yaa njëkk ne ki mu jàng tey suñu boom dogal na sama la ku ko gis ne xam ne li mu la jàngal am na résultat est-ce que mën nga ñu wax euh, sa diggante ak seen jiir tàmbale gi ak tamit ba fi mu yem nii. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen teewaay fii di sant rek di xam ne lii moom defaloo leen ko bàyyi jiili mun naa ne man mii nañ ko defal ndax tamit comme nu mu ko junjee noonu rek doon wax ne dafa baax sax mu naan lépp saa jëmm ji la jàngale euh, ak nu mu mel condition yi ak ñi nga xam ne dañoo këx ni man xam ne temps googu yëpp mu perte ko muy toog di ko di ko jàng dégg samit lu ne xam ne loolu noonu du du duñ leen ko santee waaw dañ koy dañ koy delluwaat lépp cant gi tegaat ko si loxoom bàyyi jili moom du ma ne sama diggante moom du lenn lu dul ab sëriñ ak taalibe gi nga xam ne sëñtuwaa képp moo ñu boole ndax tamit metti woon na lool kenn ku ne gis na fii nii nu mu afee xam ne seddaay gi fii nii lañ daan toog mu bàyyi itam yëpp di ko concentré si man ñu bëri tamit dégg na tamit comme ngir mbir boo ko tàmbalee seytaane dina jël ay jëmm dugg si doomu aadama yi ñëw naan la yow sa temps gi ngay perdre ndax lii mënoo ko bàyyi dem seeti liggéey ndax yor na njaboot war nga war a dundal yor ay soxna loolu yëpp mu bàyyi ko rek ngir nga xam ne li sëñ Tuubaa naan jàngal genn dong mu dem bay loolee mu jàpp ko di ko jëfee yool ga nga xam ne sunu borom mun na la ko si fay bis bi la ko faya biir yowmal xiyaam dangeen naan ko ndax dooma delluwaat àdduna ngir ma xamalaat nit ñi genn araf xamee ñu ko lenn lu dul liggéey sëñ Tuubaa waaw si lool lool nat la ñu gis diñu tàggal xam ne daar ji ñoo ko sos fin 2008 lañ ko tàmbali jékki-jékki mu ne fii daal war na mun nekk ab daar ñu ne ko ñun de sàkk woon nañ sa jëmm ji ndax ngir sa temps xam naa ne xat na lool ngir na jagleel ñu ko ñu mën a teew fii di di nafarantu di di di nafarantu nañuy leeralal yenn si mbir yi noonee la ñuy def ba yenn mbokk taalibe yi nga xam ne daan nañu romb fii gis ñuy wéyal di jàng ñu ñëw jokk si daar ji loolu nag di dem di dem ngir mbiru sëñ tubaabam luy fulla gi mooy nag tàmbali rek fayda gi mooy na eggali ko waaw xam ne dañoo tàmbali rek sa sos suñu mbébét sëñ tubaa eggal ko ba mu toll fii xam ne du lenn lu dul sëñ tubaa waaw moo tax ñu ko siy santaat bu wér ko santaat bu wér ba ba di oo mbooloo gi ngir ñu cant leen ñu ko cant googu ndax lott nañ si waaw loolu rek la waaw gu rëy ak fàttali ak fàttali dañuy tax ñu gën a ñoŋal suñu taalibe te tey xam ne sëñ Tuubaa teyam gu ne day gàcceel démbam waaw ndax metti woon na lool li nga xam ne nekkoon tout tànk wàcc fi ay foo na toog fii nii di feeri say morom yëpp romb di fooy na nekk ak foofu ak moom rek di wéyal rek di wéyal la tey jii dem ba ñooñee ñëpp seen waajur yi indi seen tout tànk yi ñu ñëw def loolu sama mbegte la ab cant la tamit saay su ma ko xoolee rek dafa daf dafay gën a làbbaliwaat sama taalibe waaw te lu dul lenn li sëñ Tuubaa doon ñu wax naan fa kullu man baadara waxtal sihaari istiraaha waxtal kibari képp ka nga xam ne gaawtu na sa ndaw jub su jëm su jub boo eggee sab mag di si noppal lool te loolu la ñuy yëg nii te sant nañ si bu wér wér wér sant nañ si bu wér. jërëjëf sëñ Cheikh mbokk taalibe bi di nga xamal ni moom mii kat doon jël kàddu gi léegi daanaka moom moo njëkk nekk si daara ji. daanaka nekk mën na sax formation Serigne Djil la tey dégg ngeen kaddu can ak kaddu seere yi nga xam maam euh, tukkee ne jëmee ko si mooy Serigne Djil Diouf sëñ Djil mu mel ne am na li nga sof si li mu ndax mbégte mënut a wees lii suñu boom mu njëkk nekk sa élève mu dem ba ku gis melo nga xam ne macha allah defaru na mu dem ba moom jëmmum ji jur tout tànk yi ak li mu la seeral yan kaddu nga siy soof rek. moom man de am na sax fu ma soxla ma ne waa du mu si teg leneen. ndax saabu moom saabu saabu moom du fa du fa boppam ndax tey ji moom mi tey wóolu naa ko wóolu wóolu bi nga xamante ne fii ko waaye di ut kaamil ne ah man ñun tey ñu wàccee kaamil fi ngay njëkk ñëw rek baa baa baa ngay baa moom baa moom ngay wër nga koy seet di ko seet di ko seet di ba gis ko baa nga jël numéro am di ko di ko wër ah suba am nañu kaamil mi Ablaye Moulé képp kuy soxla fii na ah, man suba dañuy wàccee kaamil boo ñëwul si daara ji boo boo gisul kii kii waa kii nga may àbb waaw man lu mu la mos nekk man sa wàllu bopp nga xam ne tey ji tey ñoom lu ñu mun sa alxuraan sax man man ko lu mun sa alxuraan te mun ko ndax tey ji tey moom tey daa bokk daa bokk si nga xamante ne ne wàll man sa wàllu bopp waaye dama leen waaye dama leen di waaye dama leen di waaye dama leen di kii ka sagoo dama ku ñëw tey bañ ne la kii de mi rek waaye fii la fii la toogoon di jàng ba tey lu mu mun ni ba tey am na xam yu bëri tey ji moom moo koy bind tey di bind ak loxoom ak daa di bind ba si jëmma jee toog tey ji am na galaaj yu bëri tey yu ma soxla tey jii su ma leen waxoon tey ñu bind ko ñu bind ko ak daa asmaa ay asmaa tëx yu bëri tey jii tey jii ñu ngi ni fii lañ ko bind te jaaruñu fenn fii la ñuy jaar tey fii waaw moom mi di ndamoo dama di dama nii kii nii waaw waaye leen lépp nag dañ koy delloo suñu saalu rek moom la moom moom daal moom daal moom la rek <laughs> ah, jërëjëf sëñ Jili si kàddu yi am solo yooyu dëgg la Saoudi euh, football euh, dëgg la saa ndax nit ki moom doo ko defal lii ne maa ko defal lii wax ne ndokk boobu moom ba mu ko seeree mbokk taal bi koy teewlu si euh, Bichri TV mu mel ni daaw jëkk bu ñu fi ñëwee waxoon nga ma ni maanaam semaine bu jot dafa am bësoom da ngeen si tam di def ay limu xasida ak limu alxuraan est-ce que loolu yéen a ngi si ba léegi seen jëli. waaw loolu moom loolu moom du du fi dañ moom parce que loolu moom dañ ko dañ ko dañ koy jagleel dañ koy jagleel kii kii yow sëñ Saaliw ndax chaque rek dafa am fi ay lim ay ay limu yaasin yi ñuy def daanañ def li mu 41 yaasin damaa jékki-jékki sa keroog sax ma moom moom waaye dañ ko bàyyi léegi def 92 moom bu ñu jëlee tur rek kii la moom bis ni moom def limu si tufatu nañ def ay limu si wakaan xakkan ay limu kii daalbatu jox ko jox ko addi sëñ Saliou Mbacké def ay li ñu nasru minallahi wa fathu def def ko addi sëñ Saliou lu ñu foog sax aju moom kooku moom du mu kooku moom du mu moom moom moom du dañ moom waaw kooku moom tamit loolu dafa maa dikkee nii rek damaa jékki-jékki nii rek lu ma la waxoon yëg-yëg laay demee waaw man de chaque aju mu léegi da am bés boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy jox ko sëñ Saliou Mbacké waaw chaque aju moom bés boobu moom dañ koy jël suñu lépp jox ko sëñ Saliou Mbacké du njàng dara ay yaasin li mu yaasin lañu def 92 yaasin lañu def jox addi sëñ Saliou Mbacké ay li mu tëfatu ay li mu wakkaan xakkan li mu li mu kii jaalibatu ak ay li mu nasru laay fat ko jox ko jox ko jox ko kii ko àddiya. jërëjëf euh, Badji loolu moom euh, toofeex dëgg la ndax daa jóg bu ñu ñëwee benn lim bu ñu fekkoon te bu ñu wax ji ren moom lim bi yokku na te daa mel ni lim boobu day gën a yokk euh, at bu jot wante tamit ñu gis loo xam maam def ñoo yéem te neex ñu lool ndax dañoo ñëw fekk tout tàngi daanañ toog toogin bu am teggin jublu penku te it ñaare dañoo gis ñu sol ay déguisement lu mel ni li mag yi di wax wiise ñu gën ko xam si naat te daanaka man euh, euh, benn situation yooyu sax laa sol loolu daanaka mooy seen déguisement wala euh, yaa lañ ko solal nii nii rek. waaw daanaka daanaka maanaam moo seen moo seen déguisement ndax moom lépp lépp lépp lu may def rek daa am daa am fu ko teg ndax damaa gis sama sama sëriñ suñu seen ndigal nga xam ne daa fonk lool noir blanc te daa amoon lu mu wax nag lu mu wax si noir blanc waaw daa amoon lu mu wax ñaan boo xam ne balaa mu ñëwee ba toog bay sos ba sos daayra am na dafa jël tuuti noir blanc daal si ñaan waaw si ñaan ba sax sax. digal daan daan daan naa dégg si moom tamit naan sax maanaam noir blanc ku mun sax di ko di ko di ko di ko jiitalee sax di ko jiitalee ba pare soo soo sol yëre sax maanaam loolu kii la kii la gàllaaj la te suy nag dafa am li nga xamante ne maanaam ma si dama si mosoon gis daal waaw lii yëpp moom dama dama ko si mosoon gis moo tax bu ma demee ba toog ni ba ba ma toog ñu ne wa damay créé déguisement tissu wissé laa jël ay tissu noir blanc nag moom laa jël nag kii la ko jox leen ko da si dégg ay mag te ñu ne kii la kii la moom ko gàllaaj la Ah. Ah, jërëjëf euh, sëñ Jili si leeral googee man sax daanaka loolee xamee moo ko noonu ndax suñu borom dogal man bëriwaa na sama col euh, cent quatre vingt dix pour cent man daanaka nii laay solo ay naat rek laay sol daanaka mun nañu wax sax moom mu gënal mbasin ndax euh, si Baye Fall gi laay dox te si laay dund wante ñu ngi sëñ Jili tout temps yu mel nii suñu borom dogal tout temps xam ne charge yi dafa rëy te it am na jumtukaayam dañ koy yittewoo te suñu borom dogal yaa ngi sant bu baax. waaye est-ce que am na ñoo xam maam ñu ngi jàpp si liggéey daara lu mel ni wàllum euh, xaside yi ak tamit euh, lu mel ni wàllum col gi ak tamit lu mel ni des fois euh, bu ñu amee ay xeetu tawati ndaw est-ce que am na ñu ngi jàpp si daara ji bu baax a baax ndax daaw fi ñëwee jotoon nga ñu wax dër bii nii benn taalibe Cheikh moo la ko defaral bu weesoo am na ñooñu ñu ngi tàbb si liggéey boobu léegi. mun naa ne naa ne liggéey bi moom maanaam am na am na ñu si jàpp moom am na ñu si jàpp waaye liggéey bi dëgg dëgg liggéey bi moom këll bi këll bi moo ko yor ndax moom bu këll gi matee matee dara rek damay am lu ma génne ma jox ko jëwriñ bi al ma ne ko demal ma Dakar nga jënd ma fa ay xasida waaye nag yéen nag moom bi ngeen fa ñëwee seen ñëw bu njëkk ba ñuy bi di ko di koy ñu koy sant di ko gërëm bu baax jëmm jooju di koy naan seen Cheikh Jonn moom mi ngi ba mi ngi ba mi ngi ba bitim réew États-Unis moom macha allah moom bu mu gisee émission ba léegi moom nag moom taayul taayul di jëf ndax bu mu jëfee ba léegi maanaam gis nañ daara maanaam maanaam ñu ngi ciy sant bu baax waaw waaw ñu ngi sant bu baax sëñ Cheikh Jonn boobu sëñ Cheikh Jonn moom waaw ñu ngi koy beral ñu ngi koy beral ab nuyoo di ko beral di ko beral di ko beral ab ñaan nag yaa na ko yàlla musal yaa na ko yàlla muccal waaw yaa na ko yàlla mosal nag waaw loolu ñaan googu nag dégg dégg naa nag dégg naa nag suñu maam suñu suñu suñu maam Cheikh Ibra moom moom da ko daan ñaanee waaw di ko ñaanal na sëñ Cheikh Jonn yaa na ko yàlla musal yaa na ko yaa na ko yàlla yaa na ko yàlla muccal yàlla yaa na ko yàlla mosal ndax moom mu gis seetaan émission ba léegi moom taayul moom duñu woo taayul tam waaye di di indi di indi di indi kii am addiyam waaw. <laughs> Ah, jërëjëf euh, sëñ Jili mu mel ni euh, wax ji leen am ñoom daanaka ñu ngi jàpp si liggéey bi waaye dañuy ñaaxal mbokk taalibe yi rek ñu gën a jàppaat si liggéey te xam ne liggéey bi day dox te daanaka investir si ay tout tànk euh, daa gën mbokk taalibe xam nga ñu ngi ci jeexantoolu émission bi comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek émission bi dañ koy tëggee ak radies ak tam li nga xam moo di yóbbul bés bi dañuy daal jox Serigne Abdoulaye Diaw mu daal di tàggoog mbokk taalibe yi après euh, Serigne euh, Jili tàggoo bu ñu ci noppee ñu jublu si yóbbul bés bi ak rajas bi. asalaatu wasalaam ala asrafi mursalin sayyidina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa fi dunya wa fi laaxirati ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin waaw ñu ngi ñu ngi tàggoo nag tàggoo mu tàggoo na moom ci kenn laay njëkk sama sama sëriñ ma sëñ Cheikh Ndigal Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ndax moom dama ma dent ko moom su weesoo loolu maa ngi sant nga xam ne mbokku taalibe ñi nga xamante ne moom ñi ngi ñi ngi si kaw te ñi ngi ñi ngi jëf ñoonu tam ñu leen di bere ab lu dafa am li nga xamante ne man na man Abdou Khadre moom du mu si kenn du mu si woo kenn am na am xam ne maanaam boo si woote dañuy foog ne sax daa am daa si jublu waaye liggéey bi moom ku si tàbbi tam ñun ki la lay bàyyi suñu saaliwu la lay bàyyi ndax ñun am ñun amuñu lu lay fayee waaye ku si mën suñu cee jonn nag moom nag moom waaye dañ koy bere ab ñaan dañ koy bere ab ñaan dañ koy defar parfois ay ñaan te dafay jékki ci dañ toog def ñaan ñu ko ko suñu cee jonn moo dañ ko yéene waaw lu mel ni comme sama ñaanu sëñ bi nafsu mi na laay fattu xarit moom Bachir mu ñu ne googee yaa na ko waay yaa na ko waay yaa na ko di ñaanal tamit mbokk taal bi nga xam ne tamit nañ xam tamit seen alal seen alal fi nga fi koy dugal mm-hmm. seen alal fi koy dugal waaw ndax am na sànq li nga mën a wax maanaam ci maanaam ci baatu ndigal ndax alxuraan moom bu ñu neete alif laam miim zaal kitaabu laa rayba fii xudan lil muttaqiina maanaam mënoon mënoon na fa yem xudan lil muttaqiina boobu rek maanaam maanaam jub jub ak ñi nga xamante ne waaye ñëw war dañoo ragal yàlla moo ko taxoon jóg waaye alxuraan na dama bëgg xam ne maanaam alxuraan santaane moom waa waa waa kër ki ñoo moom ka chebra alxuraan alxuraan santaane laa wax de waaw ñi nga xamante ne dañuy alxuraan ñaar dafa nekk ndigal bàyyi tere kooku moom waa kër waa waa kër waa ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp képp ko na yéene sax pour jëf si daara nga jotewul sax ñu ngi leen sant na ku ba France moo tax woo ma di ma soññu di ma ñaanal tamit ñoom ñu ngi koy beral ñaan di ko beral nuyu di ko beral ziar su ko defee daal ñu leen ñaan yéen itam waa Bichri TV nga xam ne tamit yéen leen jàpp si liggéey bi waaye ñu tam ñu leen di ñaan bu baax yàlla ngeen dem ba ba am seen jëf bopp waaw ñeneen ñeneen kooku ñu leen ñu leen koy ñaan bu baax ndax li yëpp yéen tamit mu ñeen ba gars yi tam duñu bàyyi xel rek ñu leen delloo ñu ko tam yéen itam yéen li itam li la waaw waaw itam yéen la waaw jërë ngeen jëf euh, kon boog mbokk taalibé liggéey bangoo ngoog kon boog na ngeen jàpp si kële bi euh, di woowaat ba tey ñi nga am mooy liggéey kotu Serigne Touba ak Cheikh jëf kër Serigne Touba rawatina jëf kër Serigne Saliou na ngeen jàpp si liggéey bi jàppal tuutàng te xam ne ñoom ay marchandises yu dem leen tey képp ku jàpp si ñoom doo ko rëcc mukk ndax xam ne liggéey Serigne Touba bi investissement bu dul jeex la ndax xam nañ Serigne Touba bu la fayee fii rek sa bamba maas saa xam tuuma la ngay fekk yomal am ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant bu baax cérémonie nag bu falee si wàllu cadrage bi ak montage bi ñu bàyyi nañ ngeen daay teelu rajo ak Serigne Cheikh ak tam yóbbul ba sëñ Abdoulaye Diaw wasal yaa xafaru bi salaami ala nabil Moustapha imaami waqut liyal yow ma maqaamaati rijaal bila sasal zurin wa bashir bi rijaal jërë ngeen jëf bismillahi rahmani nasrun min allahi wa fatun xaribun wa bashiril muminina nafal mafasida mahal makari ila siwaya mukrimun lijari nafal mafasida mahal makari ila siwaya mukrimun lijari salla wa sallama alayhi llahu fi jundihi kumatini wallahu rabi tufiqati wa fi tilawa rifqan yajuru birawal qalawa مني يا لله ولرسولي ولذوي الإسلام والقبول نفعني النافع نفعا جذبا لي قلب كل فائز فانجذبا أنالني الباغي لديه ولدا خير الورى ما لي شفاق لدا لسان شكري بعد ذكري خامدا بلا انتهاء إن سابق إن قالدا لي وجهنا فيهما توجه لي ردا ولي صفاء وجه هدية من المكرم كريم لي أبدا خير الذي سرى لي وعدني كل لياد لم يكن من الذي اللي اختاره الله بكم فرق بيني وبين شري من كان لي في البحر ثم بري تنمو بشاراتي به واجري وسانني عن الأذى والقجر قب النبي المنتقى نور مدر كرمنا بشرا لبدو وقدر خلقت لي منك أجورا صافيا وللجنان لازمتني قافيا رافع صليا صلاة رافي على المبرز الهدى ونافي يا ربنا صل وسلم سرمدا على شفيع ذي اللواء أحمدا بحق وجه الله والرحمن ذي الخلق والأمور والأزمان وحق وجه دائم رحيم ذي الفضل والباء وجه ترحيم بحق وجهك الكريم وسي لي ممر والديور تشي شهيد صلي بالسلام من فاضلي على الذي سميته بفاضلي ردتني ربي إلى مشاكلي وليرد ربي كل كافر allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarrada lil xat bi anni qad jahaltu nafsi laka wadiatan fakakta xabsi mutasiman billahi wa rasuli salli alayhi waltasux mamuli wajal manami wa xuxudi misla kulli ibadatin ladayka musla min asawabi wal ujuri wal aman waliya minka busharati zaman نافع صل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم يا فاتح البصر بالجنان صل على متغري جنان نافعة لمسلم ومسلمة عاصمة من مجرم ومجرمة bila afatin wala kadarin fiya wala bayni wa bayna aqadin abadan amin ya rabbal alamin wajal hazi abyata qada kulli ma hada kulli ma fatani fi sirri wal فاتني في سري والعلانية في كل ما مدى من السنين آمين يا رب العالمين بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي يا ممشى إبراهيم فال يا ممشى إبراهيم فال مقدمة di li ñu jiital yaa ayha sibiyaanu yéen ndaw ñi laa tashtaxilu bu leen di soxlawoo anil huda walis njub wastaxilu na ngeen di soxlawoo bil ulumi ci xam-xam fastaxilu na ngeen di soxlawoo bil xifzi ak wattu wa tilaawa ak jàng wajtani bu te ngeen di wattandiku majalisa saxaawa jotaayu taxe di walaazimu te ngeen di taqoo man kanga xam ni laa yazaalu déet dañ xaabida di aji jaamu li rabbihi ñeel boroomam xaa ida di aji wommat ilaa hudaahu jëm ca njubam ga fa kullu man képp ka nga xam ni baa dara gaawtu na waxta ca waxtu ndawam ilaa hudaa jëm ca njub astiraaha dana noppalu waxtal kibari ca waxtu magam wamanta daaraka ku na mu dabaatal allazi la nga xam ni xat faata faat na ko mina laxa ci neen wa amara te mu dundal al awxaata waxtu ya bi tawbati bi tawbati nasu ci tuub gu sell wal iqbaali ak jubluga ilal ilaahi jëm ca borom jël ca bërëb jël ca texe na bil kamaali ñamat ga ca mat ga xaakum jàpp leen nasihat laabiri lakum ñeel na fa tarbahu ba ngeen tanowu duniya ci àdduna wa uxra ak alaxira maha xawmin ànd ak aflahu ñooñu taxe nañ